chinois yi egsi nañu dafa am benn société chinoise bu tudd Star Times boo xam ne moo jënd walla boo dugal loxoom ci footballu Sénégal léegi ñoom rekk ñooy wane match yi am Ligue 1 dinañ wane 52 match ci année bi dañoo jël 6 milliards juróom benn milliard daal di ko fay waa Sénégal ngir wane football boobu. ba pare yemuñu fa dinañu tabax fukki stade ci fukki at contrat bi fukki at la léegi lépp lu ci doy waar mooy est-ce que chinois yi dañuy indi seen télé ndax waa i rajo ñoom Didier Bobs Mamadou Ibra Kane i média sn est-ce que chinois yi ñoo làqatu seen ginnaaw financé leen xaalis bu dul jeex parce que ñoom nee dañu am ay investisseurs li tax ma wax loolu mooy ne aussi Charles Faye bi nga xam ne moom waxal TFM GFM moom mooy seen chargé de communication moom moo fi njëkkoon tudd Stratan ndax moom ba de di wax DJ de bëgg jaxase dañoo bëgg yak. dañoo bëgg tasaare GFM moom dafa ne du DJ rek dafa am a ñëw loolu am Monsieur la mais dafa chinois yi bu ñëwee dinañ indi lu trois cent mille décodeurs chinois yi dinañ la may câble nga da nga a télé wala bu la ko mayul tamit dinañ ko yombal kon nag li Charles Charles doon wax am na egsi na Time ñu ngi fi mais lii tax mu doy waar mooy un day am problème TFM day am problème Sen TV day am problème euh, Walfadjri 2S ndax chinois yi ñoom bu ñuy yow da ngay li tax parce que chinois yi am xaalis dañoo am doole te chinois yàkkamtewul gis nga fukki at 10 ans que jël seen loxo dugal ko ci football bi bu leen fàttee mi nga xamne mom mo def la révolution chinoise Les chinois chinois tay buñu buñu moderné mao sitting motax ñom dañ ñon def ay plan 20 ans plan 50 ans ñom yakamti wuñu ndax chine dañoo bari car 1 milliard 300 millions bu ko ëppul légui dañoo soxla pétrole dañoo soxla fer dañoo soxla gaz moo tax dëkk bu ñu gis ne dafa am gaz comme Sénégal comme Sénégal pétrole euh, génn na fi gaz génn na fi euh, weñ fer génn na fi ak or dañuy ñëw foofu nag daal di installé wu. mooy fi ñu lay naxee mooy dugal seen loxo ci football bi di la wan ay match ngay kontaan tabaxal la ay estade ngay kontaan waaye chinois bu la mayee benn jël na fukk ngir Sénégal ñu ngi commencé ñàkk yu bëri xool leen li xew ci ndox bi.

bu yóbboo ñu préparo mais li ñu wax rek mooy bu ñu fàtte intérêt Sénégal waaw bu ñu fàtte ne dafa am ay Sénégalais yu bëri yoo xam ne ñu ngi liggéey um, SDE 43 pour cent Sénégalais ñoo ko moom bu ñu fàtte ne GFM ay Sénégalais ñoo fay liggéey waaw kon nag bu fekkee ne dañu dara soppi lépp daal di ko jox tubaab bi wala ñu jox ko chinois yi nañu fexe daal nañu fexe ba intérêt sénégalais buñ ko fàtte.